rôle boobu c'est-à-dire y a une responsabilité de la population ñoom war a xam vraiment lan la seen i seen i seen ressource fu mu jaar mais aussi les autorités aussi ñu gën a sensibiliser aussi la population ci li nga xam mooy l'information et l'accès à l'information budgétaire man damay sawar ci loolu nga wax ndax gis nga boo xoolee élection bu jotee mhm. li gën a bëri li ñuy waxtaanee man dama naan li ñuy waxtaanee mhm. amulul njëriñ askan wi boo demee ci yenn réew yi gën a développé yi mhm. élection bu jotee xam nga impôt ndax seen xam-xam toll na foo xamante ne mhm. en terme de d'information publique ñoom dinañ xool ni ñoom li leen intéressé mooy man mi nga xamante ni menuisier la wala monteur la wala caméraman la sama impôt bu ñu ko yoxee wala ñu wàññi ko ban impact lay am ci man du dëgg wala nañ xool bu ñu fekkee ni yokk nañ le coût de la vie mhm. wala bu fekkee ni wàññi nañ yenn aide yi man mi nga xam ne dama ci doon jot du ma ci jot ci kon kooku sa sa conscience politique Mhm. elle est intimement à la gestion de la chose publique fii nag dañu naan di day bokk diw du bokk diw dafa rafet diw dafa ñaaw mhm. c'est une question également euh, d'éducation de citoyenneté mhm. euh, sur ces questions-là de pour aussi de mentalité voilà euh, question laaj bi nga laaj dafa am solo mooy le gros problème c'est que euh, on ne va pas souvent vers vers ndaxte bu ñu dee seet ci gën a bëri Sénégal wolof la ñuy làkk. l'information budgétaire d'abord elle est disponible en français. Mhm. bi ci topp mooy euh, budget dafa ji loo xam ne dañ ko jàppee lu technique. mais nag ministère des finance ça fait des années. Mhm. ñuy def un travail remarquable euh, d'information budgétaire de développement de budget citoyen de simplification du budget. Mhm. ba léegi sax ñu ngi. def un travail de prévision des risques budgétaires. mais la nomenclature ba tey dafa dafa compliqué. cest dire boo nekkul expert cest dire dans le domaine en matière de finances publiques wala fiscalité pour nga comprendre aussi c'est tout à fait compliqué. waaw mën na métti loolu am loolu lu jar a la mën na métti te loolu nag mooy le rôle des organismes non gouvernementaux. Mhm. de la société civile mais aussi des médias. Mhm. wan nañ xool nan la ñuy waxtaanee jéem a wecconte ay xalaat ci loolu. ñi nga xamante ni xam nañ tamit jéem a fexe ba xamal ñi nga xamante ne xamuñu te bëgg nañ xam. Mhm. waaye wax leen ko ci anam yoo xamante ne yomb na tey budget c'est rien de compliqué état mooy xool ci activité éco économique am li ñu naan secteur primaire secteur secondaire secteur tertiaire. Mhm. ni muy doxee prêt yi mu am maanaam xaalis bi nga xamante ne àbb na ko. Mhm. li mu war a fay ci ay salaire li mu war a fay ci charge de fonctionnement li mu bëgg investir mu nattu loolu yëpp boo xool lan la euh, nan la toll. Mhm. du point de vue des dépenses. c'est dépenses oui. c'est des dépenses. Mhm. mu xool itam li nga xamante ne moom mën na ko xaar ci économie am en terme de recette. en terme de recette. bu xoolee loolu mu ne ah man de li ma nar a am ci recette. Mhm. lii ak lii ak lii laa ci bëgg def. waaye li ma bëgg def yëpp samay recette mayuñu ma ko kon dina am lu may dem àbb loolu muy àbb tamit dafa am ay plafond. état li muy àbb par année ça ne doit pas dépasser 3 pour cent de son budget mooy li ñu naan le déficit budgétaire mm-hmm. li ñu naan la dette publique nag mooy stock dette bi yëpp maanaam li mu àbb yëpp borom yëpp bu ko boolee warul dépasser 70 pour cent de son de son PIB de son PIB PIB bi mooy maanaam bu ñu nattee économie bi fu mu toll koom gi fu mu toll mm-hmm. ñu ne Sénégal tey mm-hmm. koomam lii lay jar donc gëm naa ne bu ñu toogee di waxtaan ak askan wi ci wàll woowu mën na am lu muy mën na am maanaam mën na am jeexital mën nañ ci jàppale nit ñi ñu gën a ñu gën a ñu gën a ñu gën a ñu gën a ñu gën a xam c'est-à-dire yaa ngi koy wax. te société civile ci am rôle mais médias yi tamit dinañ ci am rôle. médias yi aussi dañ ci dañ ci am ci wàllum ci wàllum démocratie sànq